salaamaaleykum wa rahmatullah yéen bokki jëli di bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen baalu àq te di leen baalu àq tey ñaanal ñëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne ci la nekk muy bisu màggal Touba bisu Serigne Touba Xaadim Rasul ñu si ñaanal ñëpp jàmm ñu nekk fii nag tey ci waañu ma Xidma Muxaddamatul ma bu nu ko waxee xel yëpp dem ci jumaay Touba Muxaddamatul ma am liggéey bu rëy ci màggal gi muy li commencé première safar bi weer bi feeñee ba léegi mooy daayira Muxaddamatul Xidma ma ngi ci ay entretien jumaa ji ak waajal li nga xamante si ni mooy barab bi ba murid yi nga xamante si ni bokk taalibe yi nga xamante si ñoo fiy ñëw képp koo xamante si egsi nga fii sa sedd ci ci ci barab bi te it nga mën a ziar ziar bu jaar yoon kon lépp ci daayira Muxaddamatul ma la aju waa daayira Muxaddamatul Xidma tamit euh, ñu fekkaat leen fii tey jii ci waañ bi ñu ñu ñuy togg ñu fekkaat ni fii tey ci waañ bi muy daayira Moukhaddamatoul Khidma ñu nekk ci waañ bi nii boo xoolee euh, waañ bi commission organisation ñoo ko jiite muy Serigne fàllu Mbacke Serigne Makhtar Kane kii di wax ak yéen nag doon kenn ci membre yi nga xamante ne si nii organisation ci la bokk muy Moukhaddamatoul ma ñu di ko wax Serigne Mon Ndiaye Mbeng moom même mi ngi war féetewoo ci wàll bi nga xamante si mooy cuisine ci waañ bi féetewoo togg ak yekk kon fexe ba nga xamante si nii waa daayira Muxaddamatul ma ak mboolem personnel bi leen di jàppale ci màggal gi ñëpp mën a xewlu xewlu yaatu lool moo tax Muxaddamatul Xidma ber seenu waañ fii ci groupe bi ci kër sëñ Damata di fi togg ay xewal yu doy waar saa su ne eh, danañ togg fukki mbana ak juróom yoo xamante ne si ni danañ ko seddale ci personnel bi nga xamante ne si ni ñoo ñëw ci màggal gi ngir jàppale waa daayira Muxaddamatul Xidma kon loolu du ndaw ñuy ñaan seen borom subhaana wa taala lépp luñ ci man ren bu nee ñu man lu ko ëpp kon waa mu daayira Moukhaddamatoul ma daal nii nga noonu loolu mooy seen liggéey parce que boo xoolee ci lin nga xamante si ni amagoon nañ ko ci limu nag mi ngi war a doon si juróom-ñaari nag mais biñ ko commencé ak léegi yàggul kon euh, day daaw lañ ko commencé ak ren kon ñuy ñaan yàlla chaque année muy gën di yokk xéwal di gën di yokku ci barke Seexul Xaddim